kon yow dangaa waroon a dem jëli ardo indi ko ci kër gi delloo ko Ablaay ci sama gis-gis man laay wax ndax ku nekk ak sa gis-gis ñun jigéen ñi lan moo tax ñun fiiraange di ñu yóbbu ci loo xamante ni ja daray àdduna jaru ko xaw ma ko ardo jabar la ngay jabar ci buum la nekk ba léegi comme ni nga nekkee Ablaay ci buum Ablaay bu nee la day wàcc ardo mais day wax lu ko neex wàcc ko tay wàcc ko taman loolu sax dama ko du seetaan bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg man duma ni kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma du dëgg jéema la puus laay mii mu indi ardu ci kër gi ngeen nekk ci jàmm ak salaam. waaw suñu yëfu mu ba nekk. nga ne suñu fu mu nekk. ah waaw ba nekk yow man daal nag man xale jigéen yi nag man jaaxal ngeen ma man. waaw bàjjen soo demee bay takk ñaari jabar na ko man est-ce que bu ko ardu fayalul woon ni nga talane fii di xëccooy góor. Mm. kon loolu mooy sa yow daal Ablaye yow daal lal bi rek la ñor daal yow yow daal xaw ma noonu nga koy waxee xaw ma nu mu tuddati karole daal moom mooy sa bagaas daal yow xooloo dara ja laay amul bonheur lay dundul lay boo ko gisee mi ngi mel ni ku siri ngara dox naa doxa doxa dox loo ngeen ko tàñ ngeen ko téye sante ba nëruwul sax nit ardo mii nag bay ngeen xool ko ca kaw moom du ñàkk moom mu def effet moom du ñàkk mu def effet kon jigéen la rek du mujj fenn amuñu fenn fu ñu dem man maa la ko wax ñoo dem fenn amuñ tuñ kër bu ñuy dugg ñu tey leen amul na fu ñuy dem fii waxuma dara waaye kër parement yi ni ñu mos fii mu indi fii magam yi yëpp ñu nekk fii nga yore leen di leen jox añ reere ndekkee fii ci biir kër bi moom mu dem tey fenn waxul dégg